gan gi ministre conseiller responsable ndawi AFP ak yu benn Bokk Yaakaar euh, monsieur Zator Mbaye moom la ñuy dalal ñu ngi lay nuyu oui maa ngi lay maa ngi lay fay soxna Fatou di nuyu auditeurs yi ak euh, internet yëpp. jërëjëf ñu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey gërëm la ci teel a yeewu gi ci bésu férié bi ngir sekk ak ñun euh, waxtaan wi ñu tàmbali ko ak euh, investiture yi nga xam ni def nañu ko mu ñeel élection locale yi ñu dëgmal <laughs> président Macky Sall def ay tànneef ci biir coalition bi ndax AFP gis na ci boppam. waaw xam nga maa ngi nuyu ñëpp di am mbégte ci dugg ci waxtaan wi xam nga tànneef lu métti la ndax ku tànn rek am na koo bàyyi. Mhm. ñëpp mënuñu leen a tànn euh, euh, tànneef rek dana am ku mu tànn dana am ku mu bàyyi euh, képp ku ñu tànn tey war nga jàpp ne ëllëg mën nañ laa képp ku ñu ñàkk tànn tey war nga jàpp ne ëllëg war nañ laa mën a tànn. ndax mbir mi yamul ci élection bi rek leneen ak leneen ak leneen mi ngi ci te ñun ñoo nangu. accepté bokk ci coalition boobu ñu naan Benno Bokk Yaakaar mm. nit nag boo amee kilifa nga jëbbal ko su bopp ci wàllu politique da ngay nangu ay dogalam waaye ñun en tout cas ñun ci nit ñu yaree ci AFP président Moustapha Niass ñun duñu ku nga xam ne euh, kilifteef gi dañu koy nangu rek bu ñu intéressé wala mu arrangé ñu su kilifteefu intérêt ñun su ngeen xoolee suñu àndaw ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar Euh, AFC da amu ci taxawaayu intérêt daf ci nekk parce que coalition boobu dafa ëmb li ñu naan aspect géostratégique aspect géopolitique bu nga xam ne dafa laaj ñu ñëpp ñu àndandoo pour que réew mi mën a stable pour que réew mi mën a jëm kanam. Hmm. donc ci loolu la ñu nekk euh, ñun euh, ñu li ñu war a def daal def nañ ko président Niass li mu war a def def na ko ak président Macky Sall li ci def nag mooy wala saa yu takk suñu ndëgg dem xeexi liggéey. pour que li nga xam ne nii mooy ndam li ñu mun ko am au soir du 23 janvier. mais est-ce que gis ngeen seen bopp ci euh, investiture yi ndax nee nañu ay frustration am na ci yenn alliés yi nga xam ne xëy na ñoom gisuñu seen bopp ci ni ñu tëggee liste yi euh, yéen AFP lu ngeen xalaat ci liste yooyu. xam nga frustration moom mun a yaa mënut a ñàkk mais damay fàttali rek gis nga ni na bu doon frustration yooyu moo tax ñu nekk ci coalition bi kon euh, du demee nii parce que bu 2012 AFP presque rek dama leen di jox benn exemple suñu coalition amoon nañu vingt et un députés lu ñu jëwaatee élection 2017 on s'est retrouvé ay six députés xam nga écart bi écart bi yaatu na lool taxul déggu leen AFP ci yooyu parce que ñun li ñu gëm mooy du affaire bi du c'est pas à mesurer sur le plan individuel et personnel mais dañu xool lan mooy intérêt réew mi intérêt réew mi fu mu nekk ndax tey coalition bi mi ngi màgg ay parti yu bëri ñu ngi ñëw ku daan am foog fukk tey mënatoo ko am ku daan am téeméer mënatoo ko am kon loolu nag boo ko comprendre da nga mën a jàpp ne mbir mi ku nekk rek dafa am lu lay dénk benn bànqaas bu lay dénk pour nga mën a doxal ci li nga xam ne nii mooy li ñu dénk président de la république ndax dénkuñu fi kenn nag président de dong la fi Sénégal yi dénk te moom mi ñu dénk mooy jël ay ndombal tànk di ko dénk ñenn kon nag ñu ko ñi comprendre noonu ñu xam ne àdduna yamul tey voilà. yow la ñu tànn ngir nga jiite euh, kon ñi war a dem euh, jëli moo Sacré-Cœur commune boobu ci loxol baax Dias ak ñi mu àndal euh, ci lan nga nar a sukkandiku ngir daaneel ki fa nekk tey ndax wax nañu ni itam am na fa ndëgër laay lool. waaw li ma nar a sukkandiku mooy ubbeeku yaatu bañ a beddi bañ a boddi parce que loolu mooy suma responsabilité suma responsabilité mooy d'abord acteur politique la bu fi yàgg ci commune bi xam ko xàmmee ko. jàpp ne war nañu indi man ak ñi may àndal parce que tey yàlla muy dogal dogal ne coalition Benno Bokk Yaakaar ñëpp àndandoo ak man euh, nangu dogal googu nga xam ne président de la république dogal na ko ndax nag moom mooy dogal ci wàllu woowu euh, képp ko mu tànn jàppal ne euh, moom moo xam la tax mu tànn la dafa mel ni Aliou Cissé chaque jour nit ñi critiqué ko mais moom chaque fois. mooy toog xool gis ne joueur bi moo ko arrangé ci match bi mu dem mu ñëw classé ko yàlla di ko ci may ay ndam nag ñun nag coalition bi boobu ba léegi dañu am capitaine bu ko xam ne euh, boobu ba léegi match bu jotee mooy classé yàlla di ko dimbali tamit. Hmm. ay classé yàlla may ko ndam ñuy ñaan ndam yu daan am ñu amaat ko kon nag dama jàpp ne man sama axe euh, de campagne ci loolu lay tegu ba pare indi programme bu bees ci wàllu paj mi. Euh, nga xam ne suñu commune dafa tumuranke am am centre de santé te am nañu moyens yu ñu ko war a mën a permettre ci wàllu euh, a jàngale mi école yi nga xam ne école élémentaire yi dañu màgget am na école yoo xam ne am na amuñu sax ay douche pour xale yi euh, loolu doy na waar ci wàllu environnement bi ah ci wàllu surtout amélioration cadre de vie mais du ñu fàtte wàllu tàggat yaram du ñu fàtte lépp li nga xam ne dafa jëm ci culture nekk ci domaine ci ndof domaine de compétence yoo xam ne ndax tey commune yi am ay commune de plein exercice lañ war nañu mën a tamit yokk li nga xam ne mooy recette commune bi ndax tey entreprise yu bëri ñu ngi ñëw euh, nekk ci ci Mermoz Sacré-Cœur kon daal ci tënk xam naa ne fan yi di ñëw danañ gën a mën a jàppal ci wàllu programme parce que ñun nekkuñu ci campagne personnelle na fi kii jógee ñu toog loolu intéressé wu ñu li ñu mooy fexe ba li nga xam ne mooy programme yi ñu dëxëñ ci loolu état di defar muy plan Sénégal émergent ñu mun ko indi si suñu commune am ci une déclinaison locale maanaam fexe ba li di lii di Puma lii di lii di lii di Promoville lii di couverture médical universelle lii di sax yeneen programme sectoriel yoo nga xam ne état mi ngi ko yoree ci wàllu formation ndaw ñi ci wàllu formation jigéen ñi ci wàllu jàngale ñu mën ko doxeñ indi ko fii ci commune bi xale yi mën ci bénéficier wu parce que jàpp nañ ne lépp lu ñu mën a def comme li président di wax rek c'est pour les Sénégalais te ndaw ñi ak jigéen ñi kenn waru ci jiitu. Hmm. ñu des ba tey ci seen coalition bi ndax euh, am na ci ay frustré yoo xam ni ñoom euh, dañoo fas yéene dem ci élection yi wut ñeneen ñu ñu àndal loolu nag euh, mën a itam jur yooyu frustration ay vote sanction est-ce que yaakaaroon ni élection yi ak tànneef yi xëy na jafe-jafe mën na caa juddoo ngir seen coalition bi. am na ñëpp ànd ak yow moom yàlla béy ko kenn am na sax yàlla sàkk ñëpp. Hmm. adduna bi am na ñu nga xam ne gëmuñu yàlla duñ ko jaamu te pourtant suñu xëyee lekk moo tax bu ñu xëyee naan moo tax bu ñu nooyee moo tax te gëmuñ ko kon nag bu kenn jàpp ne mar euh, nga mën a ànd ak ñëpp ñëpp topp sa dax ndax euh, àddina tëddeewul noonu. Hmm. li ma gën nag te jàpp ko mooy euh, nanu fexe bi ñun ñu bokk coalition Benno Bokk Yaakaar ñu xam ne enjeu bi enjeu électoral bi ak enjeu stratégique bi. du man ma falu wala yow nga falu déedéet enjeu bi mooy fexe ba équipe bi président de la république de gagné loolu mooy enjeu véritable bi kooku nag képp ku nekk benno bokk yaakaar da ci war a xar sa tànk tubéy pour équipe bi gagné ndax bu équipe bi gagné président de la république moo gagné mais képp ku nga xam ne yaa ngi toog naan da ngay bar sa yoon wala yaa ngi toog naan dangay yàq équipe bi ndax bu équipe bi amee gàcce yow nga am ndam yaa ngi juum yaa ngi juum ndax loolu du suñu taxawaay te li ma gëm mooy euh, dañu dépassé daal époque boo xam ne époque gu maanaam maanaam daal parce que tubaab dafay wax ne le moi est haïssable li am solo mooy ku ci nekk jéem a fàtte sa bopp xool l'intérêt et jouer collectif man pour man loolu moo am solo. Mm-hmm. est-ce que tamit euh, ragaloo liste parallèle yooyu xëy na mën a jur euh, tasaaroo ci biir benn ndax yàgg boobaak léegi tey suba ñu ne. ne coalition bi tas na mais est-ce que yaakaaroon ne lii xew tey euh, fi la yëf yi jaaree ndax itam contexte bi dafa xaw a particulier président Macky normalement bii mooy dernier mandat wam donc euh, est-ce que ku nekk du jéem a euh, wéy ak cëggal guyam lu mu am jël. xam nga ñiy def météo politique depuis daanaka fukki at ñu ngi naan benn élection bi lay jaaree tas. Hmm. mais à chaque fois yàlla mi ngi ñuy suturaal ba suñuy responsable am nañu maturité am esprit dépassement bu ñu mën a toog xam ne attention euh, fii la ñu toll kat il faut qu'on avance et réew mi la ñu jiital parce que kenn ku nekk ci ñoom bu sa bopp rek nga xool et président Macky Sall su xooloon boppam dina am responsabilité yoo xam ne du ko dénk ay alliés alliés yi aussi kenn ku nekk su xooloon sa bopp xëy na dina jéem a bersalang wala nga jéem a dem ci opposition wala nga jéem a yàqal président mais kenn ku nekk boo xoolee la président waxoon gagner ensemble gouverner ensemble dindiwu ci dara ku ci nekk mi ngi ànd ak yow jox la ay responsabilité pour nga doxal pour réew mi mën a jëm kanam parce que euh, lépp li nga xam ne mooy le socle politique li koy lal li koy téye liy def le portage politique des politiques publiques c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar te loolu nag lépp chaque jour ñun suñu mission mooy fexe lu koy yokk mooy fexe lu koy dëgëral mooy fexe lu koy jëm jëm le kanam si ngeen baal ma. Mhm. loolu loolu nag ci la suñu responsable yi nekk kon ñun ñu nekk ci base yi war nañu mën a xool loolu. Mhm. ku ci nekk fàtte sa bopp nga xam ne li am solo mooy réew mi li am solo mooy gox goxaan yi mais li am solo du rek man la budul man du kenn je pense que loolu c'est c'est même li tubaab di woowee c'est de l'égoïsme wala de l'égocentrisme ñu wax ci fitna gi tàmbalee euh, jolli ci làngu politique bi euh, jamono yële jàppante amoon na fii ci diggante ñooñi Ousmane Sonko ak Doudou Ka ca Ziguinchor démb itam wax nañu ni lu ni mel am na wala xaw tuut ñu yegg ca la amoon keroog euh, ñu ragal nag bu élection yi see xëy na fitna gi gën a tar yow lan nga jàpp ni tey mooy saafara ba xëy na loola ñu mun kaa gàttandu man dama ak jaaseeg paaka lu mu wuti ci langue man loolu moo a jaaxal politique du du fu ñu war a bëree du fu ñu war a xeexee du fu ñu war a tojante ay bopp je pense que créé nañ arène nationale am na ay arène ci réew mi pour ñu jàpp ne am na nañu doole pour xeex foofu la ñu war a dem mais politique du dara lutul xel ak xalaat man lii laa xam ne yow lii nga xalaat pataas moo ma gënal ñam bi jarul toj bopp waay yow lekkal sa pataas bàyyi ma sama ñam mais mais mais au nom de quoi nit ñi war foog ne euh, da ngeen war a xupp dañu war a tiital dañu war a wane deret dañu war a wane une face hideuse des acteurs politiques je ne dis même pas des acteurs politiques parce que ñooñu c'est des acteurs politiciens comme le disent l'autre am na lu nga xam ne c'est inadmissible ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne mu jàmm la Sénégal réewum teraanga la Sénégal réewum yiw la ñun ñi bëgg jël réew mi rek ñenn ñi foog ne dañ ko war a jël di ko xeexee di jël genre di dóor si pôle te koo fi gaañ nag yaa koy seet ndax fi ñun ay mbokk lañ. Mhm. en man de maa ngi lancé waat appel ci ñu nekk ci langue politique di wax parents yi nañu téye seen doom seen kër yi bu ñu jël xale yi ñu leen di xeexee kuñ fi fay cinq mille wala dix mille na dóoral ma kii yaa koy rëcc kese ndax bu la téyee yëpp la tëgg sa kaso ba ka la yóbbu woon sax ka la yóbbu woon fay la di mille doo fa fekk. say waay jur ñooy ñàkk te àdduna am na loo xam ne jaru ko fii lépp loo fi yóotu na na na na gën ci yow lépp loo fi yóotu na fekk nga taw ko nañu delloo si xel yi xam ne politique du du du vraiment dafa war a nekk une compétition saine politique dafa war a nekk une compétition saine yéen journalistes yi ngeen dimbali ñu si acteurs politiques yi ñi nga xam ne tey jii nekk nañ ci benn commune ku ci nekk bëgg nga commune bi mais nañ ñëw toog ñu waxtaan. loolu kay ñun ñun ci lañ dëkk waaye yéen bu ngeen di jàppante kay feneen ngeen koy defee rajo yi kay ñu ngi leen di invité non loolu laa bëgg wax parce que parce que bu fekkente ne tey jii euh, lii ñu jëm nii xam nga lan lañ soxla hmm. li ñu soxla mooy des débats d'idées mais mais le terrain des débats d'idées pour le mais c'est mais est-ce problème bi du c'est l'argument des faibles. waaw mais est euh, euh, xoolante comme ennemi. au lieu que ngeen di xoolante comme adversaire et adversaire sax euh, benn instant parce que ñi doon xeex démb ñoo ànd tey xam nga loolu lu indi absence de programme simplement parce que su fekkee ne man mii am naa programme xa tey jii junj naa la ay aspect ci li ma fas yéenee def mhm. keneen ku may jonganteel war nga mën a indi sa programme ñu waxtaan ñi nga xam ne ñooy voté xool ci suñuy programme ban moo ci tane ñu voté ko mais c'est très simple. kon daal mooy mooy lu wolof naan coow li ci buntu teen bi gaa yi amul baak la. mais képp nag ñi amul programme ñooy xuloo mais mais képp parce que ki nga xam ne am na programme ki nga xam ne am na ay gis kooku amul temps xalaat moom nu muy tojee bopp nit xam nga lu muy xalaat man programme bi nu muy wutee ay moyens pour mun ko réaliser pour l'intérêt des population mm. donc foofu laa wax ne nit ñi nun acteurs politiques yi laay waxal la ah, acteurs politiques yi man ca laa bokk cette manière de faire de la politique nouvellement la nga xam ne nit ñi jàpp na ne politique saaga la mm. xaste la xuppante la tiitalante la mais dañoo juum réew mii di réewum Sénégal kenn du ko jël ci ay ay kenn du ko jël ci ci ci ay jaase ki paaga c'est un pays de dialogue c'est pays de paix te loolu nag ñu ngi ciy xaar ñëpp mm. te jàpp naa ne l'État sera fort pour nit ñi citoyens yi ñu préserver seen intérêt physique seen intérêt matériel parce que nag doy na ah. Mhm. ñu nekk di dóor ni ñi di di xupp nit ñi di xëbal nit ñi pour lan teg ko fan pour bëgg a yàq suñu réew mi ay waay loolu jàmm jàmm ko gën suñu jàmm ñi ñu am yàlla na fi sax. Mhm. te politiciens yi képp ku mu mën a doon nga mën a delloo si sa xel xam ne élection yi ñu jëm ay élection programme mhm. du ay élection xeex ak voilà leer na alors mënuma laa bañ a laaj nag lu ñeel Soham Wardini euh, maire Ndakaaru nga xam ni bëgg na demaat ci élection yi ci euh, bañeeru Yewwi Askan Wi di coalition opposition waaye li ñuul ci soow mi mooy Soham AFP la bokk moo jiite sax seen jigéen yi ci Ndakaaru euh, tey ñu bari comprendre ñu tekkaaralu AFP ndax kenn ci ay leader dem ànd ak opposition bi waxu leen ci dara ñu bari comprendre ñu noo ñu mën a expliquer loolu tey Zator mbay man démb dama ko seetaan émission bi mu def du début à la fin mu wax ci wax yu ma bett wax ci wax yoo xam ne mënu ma ko comprendre parce que ndax tey bu nit ñi xamee Soham Wardini c'est parce que dafa bokk AFP AFP moo ko jël yóbbu ko ville de Dakar en 2009 d'abord def ko candidat ci commune d'arrondissement bi man mii ngay waxal maa doon responsable jeune am moom moo doon sama secretaire général yaa ngi may dégg. Mhm. bu ñu demee ba élection député mu am xëccoo ci parti bi. président Niass jël ay responsabilités ne comme ñaari nit a ngi xëccoo ñaari nit ñëpp la ñuy teg jël keneen ki ca topp ñu topp ko moom mu gedd bàyyi parti bi noonu la wax di demee parce que tamit wax boo koy wax bu ko mm. raay noonu la demee. Mm. moo Malick Diop doon xëccoo ñun ñu teg leen ñoom ñaar ñëpp daal di may tànn man nii te man maa doon responsable jeune moom moom waroon na njëkk jàppale ndax man moom ñoo bokkoon commune terewul ca boobu ca la geddee parti bi ca la geddee toog ne moom comme dañ ko beddi moom bàyyi na waaw noonu la wax di demee léegi nag démb nee na na ko parti bi dàq du ko man de su ma doon moom du ma xaar parti bi dàq ma parce que li mu waxal parti bi yëpp démb su ma doon moom du ma xaar parti bi dàq ma maa jël sama responsabilité ne man bàyyi na ndax nag euh, am na loo xam ne tamit ci àdduna kenn du ko forcer kenn. Hmm. bu bu fekkente ne parti bee la pousse ba nga dem ville la Dakar ba xamante fa ak ña nga fa xamanteel ba tey nga mën a taxaw si télé bi di leen xalamal ba pare di di di di xarab yow la taxoon yow nga yegg foofu man damay am jaxle ndax man du noonu lañ ma nàmpatale ci politique ndax politique nag dafa am éthique dafa am déontologie dafa am ngor dafa am sedd démb bàyyi xel démb ndax bu du woon démb xëy na tey du am tey bii bu jaarul woon suñu parti ba parti bi jox ko responsabilité yooyu dafa dul egg ville de Dakar ba mën fa accéder ci lenn. mais nag comme nee nañ ko daax parti bi du wax ci loolu. Hmm. moom na jël ay responsabilité am génn parti bi. léegi bu jëlul ay responsabilité mën nañ xaar parti bi dàq ko. ah parti bi du ko daax parti bi hmm. talatu lool de toutes les façons lépp lu mu fi occupé woon ci ay responsabilité bu dee ca Mermoz Sacré-Cœur ñun jël nañ suñu responsabilité dindi ko teg fa keneen. Hmm. bu dee ca ca ca kon kay yéen dàq ngeen ko ba pare. non non mais bu déggoo li ma la wax dama ne bu dee ci département de Dakar. lam hmm. fa yoroon. Euh, suñuy texte may nañu comme doxalu ko. comme ni mu ko waxee moom ñeenti at a ngi nii duggul ci parti bi yoonam ci parti bi tam lu toog di ko xaar di nasax jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi jël nañ seen responsabilité kon am nañ leen beneen njiit hmm. waaw am nañ am keneen ko leen jiite boo jëlee département de Dakar ah, Ami Dia Ami Dia moo ko jiite moo ko remplacé tey commune kon kay yéen dàq ngeen dàq ngeen euh, soxam ba noppi non non mais loolu yàgg na loolu loolu c'est depuis longtemps parce que boo nekkee ci ci parti bu parti bi ne gauche nga ni droite su parti bi ne verte la ñuy def nga ne defuma verte bleu yoo koy bokkatoo ci parti bi génn nga sa bopp mais nag munoo nag ne nekk ndiiki ndaaka bu la neexee nga tafu ci parti bi su la neexee nga ni génn nga ci parti bi man AFP laa bokk waaye maa ngi ci taxawu déedéet ku bokk AFP da ngay épouser les principes du parti respecter li parti bi di joxe waaye AFP laa bokk waaye lu santaane du ma ko def bokkatoo ci parti bi. leer na Zador Mbaye ñu ngi lay gërëm euh, amoon nañu mbégte lool sëkk ak yow waxtaan wi ci matinalu Rewmi FM fàttali ni ministre conseiller nga ci wetu président de la république yaa jiite itam ndaw yu AFP ak yu benn Bokk Yaakaar ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup Fatou jërëjëf.